dama leen bàyyi ci biir rek. mu ngi noonu nag léegi nag bàyyi ci biir boobu nag te xam ne ñoom ay fen la léegi nag par force nag mu neex mu naqare dafa jot ci taabal nga ne leen yaa ngi may dégg. terrain bi soxlawuma ko dama bëgg ngeen jox ma ma tabax pour sama famille. attends attends moi moi si si si nitu lan lañu. Ngom. Mor Ngom y' a Ahmed Khalifa il y' a Mambo Diaw 2. y' a Mambo Diaw on s'est donné il y' a Antoine il y' a ministre des finances ADD. y' a je sais non non ministre des Finances, je ne sais pas M. Diop je ne sais pas. il y' a Pape Samba Diop. Mm-hmm, Peter Ladjouf, commandant Brimofal, il mm-hmm. y a Bougan Gaydani, il y a Maître Abdou il y a Maître Abdou Djeylani yaa Mamadou Diallo yaa Kriku Abdou Mbow yaa Aliou Ndiaye. kon Bougane kon Bougane xam nga xam nga. ne au courant xam nga xam nga man Bougane waxoon naa leen am na lu muy liggéey gouvernement bi. xam nga waxoon naa ñii ñii moo tax ma ne la seen nguur dina daan te su ma ñëwee liste bi yow laa koy dénk nga teel ma ko ba au lépp loo am ci secret dama lay wax. dama koy yóbbu dama ko bàyyi sax bàyyi fii ñuy vérifier di ko gis ñi ay doomu xaram la lépp loo am ci secret mooy sa ngànnaay yow suñ la bëggee hmm. sànq wala ñu bëgg laa rey man xam naa ne suñu mujjeeg yow dañ lay bëgg a rey mun nañ laa mun nañ laa pikiir pikiir boo xam ne di nga dem trois mois deux mois nga jaaree fa faatu mun nañ la def leneen ak leneen te man dama am intérêt pour sàmm la parce que amoo benn mbokk tey man maa fi sa mbokk parce que sa papa xamul aduna bi amul doole xamul aduna bi lumuy lumuy lu muy riir lumuy doxé doxee lu sa yaay génn na aduna sa frère ci man la nek ndax man la yaakar aduna ak àllaaxira sa xamuñ aduna numuy doxé kon kenn nga am ku jambarté ko xamni ne mun na la garder mun na la jappalé moy man dafa am ñuy ñew ma bàyyi la kon après ñu oo tontuwaat non ji ñi ñu duñ sax ay nit hmm gis nga bugan mu ngi liggéey ak ñom ci souf gis nga loolu. Ah, bah bah ba oui. waaw ba pare ba pare mel ni kuy kuy contre euh, pouvoir bi. fekk <laughs> mu ngi liggéey ñoom ci suuf. contre que le mec saa yu demee point yi muy am yëpp da koy sewtiwaat. waaw. ay on lui donne de l'argent pour que mu liggéey day liggéey. day def liggéeyam. nu mu waree ñoom ñoo ko ay complice la lobby la lobby la ci biir lobby yi. ñu ngi noonu. Hmm. ñun ñu ay doomu xaraam moo tax ma ne xam naa lu bëri te des fois dama leen koy wax

parce que suñ. léegi on va jouer carte sur table. légui suñ xamé ne yow. yéw nga rek amatul lool amatul neexal amatul ay neexal nek fi di yaru yar wala di wone ne dama yaru wala innocent alors que lool yëpp gawuma ci dara benn doomam. ah dañuy jël nit ñi. am la muy dox comme ñom ñom ñom ñep duñ ñep yar yem. mané la ay affaire yaru yaru fi nek nak melnu ko xamul dara alors que dem naa ba dëkk yoy la lool yoy lay bay dootuma ko defati dootuma ko defalati kenn.